bu commission de lois mi ngi si ligne bi euh, Moussa bu fekkee yaa ngi ñu dégg honorable maa ngi leen dégg bu baax a baax. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi en direct sur Zik FM ak Sen TV comme ni ma la ko waxee nga dellu si waat un peu euh, si discours à la nation bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye léegi nii par rapport à la dissolution de l' assemblée nationale. dellu si moom amul solo moo wax moo weddi boppam. kilifa bëgg naa buy wax muy taxaw ci lu xam nga ñun assemblée nationale amul benn yoon bu nu xëccoo ak moom bu dee am ngeen seddu dañu yëkkati motion de censure président bindu ñu yónnee ñu ne nañ ubbi session extraordinaire au nom de l' article quatre vingt quatre de la constitution ñu teg suñu motion de censure examiner ko parce que de priorité loolu la yoon wax biñ ko examiner ba pare def ñu ko jox ci quinze jours mooy motion de censure bi bi ñu waxtaanee point yëpp def suñu agenda commission technique plénière fixé datu DPG ñoom biñ koy fixé datu DPG bi amul kenn ku ne assemblée waru ko fixé dañ doon weerante entre le onze ak le douze kon mu bëgg mu leer foofu amul kenn ku nekkoon ci salle bi ku weddi ni assemblée ma war a jàpp ñi dañ ko war a def huit jours avant ñii dañ ko war a def mën nañ ko def ba le onze parce que président jàppul date session extraordinaire lañ nekk biñ ci génne jàpp le onze coow li wulee ñaay président de la république jëlaat binduñu ne dama bëgg ngeen jàpp ko le treize conférence des président woote waat ni président bi bind na nee na nañ ko def le treize ñu ni comme agenda wu président la ñuy examiner nañ teg le onze bi ci suuf daal di jël le treize ne di président moo ko def ñu agencé suñu mbir loi yi ñëw ñu voté ko en commission voté ko en plénière et à l'unanimité mooy wane la bonne foi comme nag ñoom yéene ji moo doon boole ñoog askan wi jéem nañ ko ci conseil économique sociale et environnemental ak au conseil ñu ni leen nangu nañ ñu yaxanal waaye comme yéen nee ngeen fonds politique yi dafa xaraam te ay milliards yu bëri la boole leen ko ci conseil économique social ak fonds commun ndax mu gën a duun gën a amal njëriñ askan bi su ngeen ko andee huit heures neuf ñu voté leen malheureusement ñu loolu ñu delloo leen seen loi bi ñu andee commission des droits de on l'a voté à l'unanimité bi ñu àndee loi de règlement euh, ratification bi ñu voté ko à l'unanimité moom kay li am ba am te Sénégal yëpp doon ko ruume daal mooy ni nekk te jomaay figuration la soo koy dogal jomaay wa mhm. bi ñu bëggee daa dindi ki yor conseil économique social environnemental au conseil Sonko def live wax ko te ngoon gu ñoo ñu tëb biñ ne Sonko ci boppam moom tëkku na député yi ne leen fii le douze da ngeen leneen ñu agsi le douze président wan la mu waxoon jëfe li Sonko wax lii mooy li am. <laughs> léegi euh, député honorable Moussa Diakhaté euh, ban également ngay def par rapport ak euh, fixation wu euh, datu élection législative le 17 novembre prochain waaw damay waral ni décret bii tas assemblée mooy jàpp datu prochaine élection te gën kaa yées trente jours soixante jours la war a doon gën kaa bëri dafa war a nekk quatre-vingt-dix jours waaye man sama problème mooy ñoom nan la ñuy def ak loi électorale bi loolu rek mooy sama problème ndax moom ku ku ku ku ku ku ku xaw ma lu ñuy wax ku wal mburu tudd dëkk loolu mooy sama problème bi lii mu def moom le fait que mu tas ko am na ci droit li ñuy fustiger mooy dóor dàqe bi yoote bi yoote ñoom nag dafa mel ni Y da leen neex de démb ñu ngi woon ci yoole bi tey ñu ngi ci yoote bi mooy dàqante bi. naxante bi jëlee institution defee ko ay foyekaay mais nag am na sañ-sañu tas defe naa ne amul sénégalais ku ko bañal waaye président bu demee ba wax kàddu ñaar la am doom ak signature su demee ba mu woyof ni laalo su boobaa bu ëllëg bu kenn wegulee nga ni moo ko def boppam waaye sañ naa tas su tasee itam yoon dani ko atul 87 da nga war a jàpp ci daar daar ban élection la ñu war a jëm yoon itam may na ko ni ko 60 jours gën kaa néew 90 su ëppee. waaye loi électorale dafa wax parrainage te parrainage bi day weesu date bi nu ñuy def ak moom comme ñu bees dañu am ay stagiaires lañu am ci kaw réew mi mënuma laa wax nu ñuy def ndax ku jalgati constitution doo faale loi électorale. wax na leen ni que ni euh, code électoral ne seront pas du tout appliqués par rapport ak la dissolution bii nii. ah waa su boobaa xam nga moom ñoo yor seen cugalu guy ak ñii daal soxna si bu leen dara bett comme ñoom ñoom ñoom ñoo def nii ñu defee. moom daal jàppal ni lii neex Ousmane Sonko rek la Diomaye di jëfe mu jaar ci yoon mu ñàkk jaar ci yoon bëgg-bëgg usmaan Sonko daal jàppal ni ci la Diomaye di wax ku xool ku ne jàkk tey kanamu Diomaye ji mel ni da ngay xam ne ni kii li muy wax gis na ko lool ndax mu ngi weddi boppam tey waxum yu yàggul lool bu ngeen demee ci TikTok lam doon wax ca njiit ak kàddoom ma nga fa tege waaye nag ñi moom man bettu ma ndax moo taxoon ànduma ñoom woteelu leen gungewu ma leen ndax xam naa ni mënuñu te seen premier ministre bi mënul ñemewul li mu bëgg mooy dem assemblée làqatu ji fa comme président ndax kat ku naan Maroc amul pétrole ku naan Suède pays scandinave la kuy tëkkale Corée ak euh, Diourbel